chers téléspectateurs de la première chaîne privée du Sénégal la 2STV maa ngi leen di nuyu émission au galop équitation concours international de la l'amitié muy am fii ci Racine Club bu Dakar mu nekk fii ci massif forestier bu Petit Mbaaw tey nag mooy cinquième édition bi muy vingt-cinquième journée de l'environnement muy grand prix monsieur Abdou Karim Sall ministre de l'environnement et du développement durable samedi nag la ñu doon def li nga xam ne samedi 11 la ñu doon def épreuve yi nga xam ne mooy épreuve préparatoire yi pour cavaliers étrangers yi nga xam ne dañuy mën a adapté wu ci suñu fas yi ma ànd ak sama caméraman ñu dugg ak yéen ci li nga xam ne mooy vingt cinquième euh, journée de l' environnement ndax boo waxee environnement moom mooy doon gàncax gi garab yi nga xam ne moom la ñuy dagg war nañ ko bàyyi li nga xam ne moom mooy mbuusu toile yi war nañ ko moytu ndax loolu day yàq li nga xam ne mooy alam gi muy loo xam ne lu am solo la tey nag ñoo ngi fii ci Racine Club de Dakar mu nekk fii ci massif forestier bu Petit Mbao tey pap Seck nag moo organisé li nga xam ne mooy concours international bi tey jongante yu mag a mag la ndax am na ay cavalier étranger yoo xam ne ñëw nañu fii muy suñu mbokku américain yi suñu mbokku belge yi ak suñu mbokku français yi waaye grand prix bi ci kanam lay am ñu lépp du leen ump tey fi nga xam ne mooy massif forestier bu mbaaw seen émission au gallo dafa am rubrique santé animale tey nag ñu toog ak koo xam ne. moom mooy docteur Abdoulaye Cissé. lan nga may wax ci wàllu bien fas ndax gis nañ ne yéen da ngeen di sàmm li nga xam ne mooy bien-être fas fii ci Sénégal. ah alhamdulilah fas moom xam nga fas déjà dafa di mala boo xam ni compagnon la woon daal compagnon ci gën ci mbindeef donc euh, fas aussi. dafa nekk euh, compagnon nit ci lépp loo gis. Euh, épidémie grippe équine bi euh, daaw fàggaagal na fi ay mbaam ak ay fas yu bëree bëri. fa ndax gis nañ ne jamono yi période sedd la te feebar bi jàpp nañ ne mi ngi fi ba tey nan la ñuy def pour éradiquer ko. maanaam li ñuy wax jàpp te woo bàyyi xam nga daaw am na lu ñu commencé woon feebar bi moom da nga koy topp tout le temps daaw bi ñu commencé li ñu njëkkoon def mooy fexe ba imaginer ba identifier. doomu jàngoro ji ban la parce que dafa am doomu jàngoro yu bëri. mais nag yàlla am na gurme bi. gurme bi dafa àndoon ak gurme gurme bi moom sax ay li ñuy woyee ay jàngoro yu ñëw tegu toftol la ci. moom bu demee ba jàpp fas bi da ngay gis fas bi day am problème pour noyyi. te day soj bakken yi di xel yi lu weex tàll. te loolu dafa gaaw a wàll. surtout nag li muy gën a sonal mooy wajan yi nga xam dañoo jàpp wala euh, mool yi. yan signe la ñuy mën a xam fas bi bu fekkee euh, loolu nga xam ne mooy jàngoro ji dal na ko nan lañu koy xam waa li day am fas bi jàngoro ji boo xoolee lépp lu mu jëm ci affaire respiration fas bi la ndaxte waa noy bi daal mbirum xëtër la quoi donc mën na jugee ci mu am température bi nga gis fas bi day sonn commencé di li mu di bañ di loof léegi bu loofee nag doomu jàngoro ji lu muy gën di law nga gis fas bi bakken yi di xelli muy sëqat sëqët bu metti sax ba pare léeg aussi si bopp bi ak euh, wetu épaule bi di nga gis fas bi day càkkaar day am càkkaar càkkaar moom soo gisee mën nañ ne lu baax la baaxul aussi parce que soo ko gisee ma day tekki nii am na doomu jàngaro bu nekk ci biir ñii di war aussi bokk nañ si vétérinaires yi aussi bu ñu dul jël seen matukaay yëpp bokk nañ ci euh, ñii di toppatoo fas yi ñuy woowee palefreniers yi cavaliers yi entraîneurs ñëpp mën nañ boole ci contamination bi dañuy wax éleveurs yi que feebar bi maanaam demul day làqatu soo xoolee loo tax seddaay bi su ñëwee rek feebar bi day commencé waat wàññeeku na nag mais nag mi ngi ci ba léegi fi mu nekk nii nag euh, ñoo ngi def euh, reconnaissance de piste pour xool li nga xam ne mooy piste bi xool obstacle yi nga xam ne moom la ñu war a tëb dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu équitation gis nga écurie yi ku nekk yaa ngi ànd ak sa moniteur ñuy xool li nga xam ne moom mooy obstacle yi nga xam ne moom la ñu war a tëb ak foule yi nga xam ne moom nga war a jël yaak fas bi couple bi nga war a àndal mu nekk lu am solo tey fii ci Racine Club bu Dakar épreuve numéro 5 Ismaïl Tour la 1 euh, mètre la ñu am vingt vingt huit cavaliers mu nekk barème A au chronomètre barrage intégré cavalier bu njëkk bi nag moo mooy Vincent Le Haye muy cavalier français waaye dafa def chute moo tax ñu ñu ñu éliminer ko deuxième cavalier bi moom mooy Adama mbay mu ngi bokk RCD Racing Club de Dakar waaw gis ngeen premier obstacle bi da ko réussir Adama mu song deuxième obstacle bi muy verte jaune rouge bi mu réussir ko. bi ñëw attaqué 11A ak 11B laal na 11A bi double la laal na 11A bi double la am na benn pénalité aadama Babacar Ndoye mu ngi bokk écurie Anne Marinance Babacar Ndoye écurie Anne Marinance la bokk moom mooy troisième cavalier bi nekk sur la piste. waaw euh, Ah, ah, ah, waaw waaw waaw euh, euh, Babacar yàq na obstacle bi na xaar ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain. Cavalier malheureusement waaw cavalier bi éliminé nañ ko ndax dafa appuyé ci obstacle bi. quatrième cavalier bi moom mooy Baye Mor Fall war fas woowu nga xam ne mooy béti mi ngi bokk RCD. Euh, piste bu technique la waaw euh, Baye Mor euh, daaneel na benn baar waaw laal na double bi laalaat na beneen ah waaw waaw Baye éliminé nañ ko Manon Poussin moo nekk ci pist bi war fas woowu nga xam ne mooy Sunrise wara a jonganteeg cavalier sénégalais yi moo tax nekk na ubbeeku bu am solo ci wàllu équitation fii ci Sénégal waaw gis nga verte jaune rouge bi laal na ko waaw laalaat na moom tam éliminé nañ ko ndax xam ngeen jongante bi 28 cavalier lañ mais day am barrage éliminé nañ ko ndax dafa laaj ñetti obstacle Jacques Sané mi ngi war fas nga xam ne moom mooy Kanadu li ne Kanadu li nekk ci programme bi à vertu du désir la ñu def waaye kanadou la war mu réussir euh, obstacle bi mu ñëw nag attaqué li nga xam ne mooy rouge gris bi dem ci set bi sorti à gauche mu dem ci set bi à ah, refus fas wi def na refus def na refus waaw mi ngi naxanteeg moom fas wi def na refus waaw defaat na refus defaat na refus ABC bi mu triple ABC euh, sortie à droite waaw éliminé nañu ki nga xam ne mooy Jacques Sané xam ngeen nag parcours bi dafa technique chef de piste bi moom la proposé fii parcours bi dafa technique dal tuuti am maîtrise ak sa couple pour man ci génn. Mohamed Ndoye mu def virage à droit jël nag obstacle numéro troit bi mu réussir ko mu ñëw ci courbe à gauche 4 droit blanc noir jaune sortie à droite mu ñëw nag def sorti à droite waaw waaw jël na ligne bi réussir na ko 8 ak 9 bi. Maeva Eklin moo nekk ci pist bi mooy cavalière bi war ki nga xam ne nii mooy Evans moo war derby Maeva Eklin derby la war mi ngi bokk cercle des étriers de dakaar cercle de l'étrier de dakaar la bokk mu tourné nag euh, def virage à droite ñëw ci obstacle bi mu réussir ko waaw gis nga ko Maeva xaadim seen moo nekk ci piste bi xaadim seen mi ngi war fas boobu nga xam ne mooy Evans euh, mu bokk Asfa Evans xaadim ah, laal na obstacle bi laal na ñaari obstacle Madibou Diallo moo nekk ci piste bi ak Amza mu ngi bokk écurie Anne Marinas 15 jours yële ca ginnaaw fële ci Asfa Madi moo moo jël li nga xam ne mooy N3 bi ci kanamu nag ki nga xam ne moom mooy coach am muy Bàcc Gay xam nga Bàcc Gay mooy coach Madi bu Madi bu booy kolobaan la Bàcc moo ko formé ci wàllu équitation waaye keroog N3 bi élève bi dafa gagné maître am. Christophe Marouchi moo war Fana moom moo nekk ci pist bi Christophe mi ngi génn mu ngi génn pour jeexal. obstacle numéro 10 bi la jël réussir na ko mu ñëw nag ci duubul bi muy 11A ak B mu réussir ko. Christophe mu ngi maîtriser euh, laal na ko laal na ko laal na. Aline Delo moo war Panama moo nekk ci piste bi cavalière la boo xam ne mi ngi bokk écurie Anne Marinas EHM la bokk. dàq. mais réussir na naxante naag fas wi ba kii ah, ah, ah heureusement choqué bi dafa caval cavalière bi dafa chuté dafa chuté waaye éliminé nañ cavalière bi mooy Babacar Dieng mu war mu war Carmina de Mars Babacar Dieng mi ngi bokk poney club de Anne jeune cavalier la ku am avenir la nañ ko bàyyi xel bu baax a baax Babacar xale la ah buy am ay dix ans onze ans yooyu lay am mu ngi bokk poney club bu aan Babacar euh, waaw euh, moo ko Carmina de Mars waaw réussir na ko <laughs> Julie Lapère moo nekk ci piste bi moom aussi mu ngi bokk poney club bu aan. waaw eh, ah, mi ngi poursuivre nag li nga xam ne moom mooy ah Julie jël na triple bi nag ñu xool lu muy def oh, fas wi def na refi heureusement tuuti mu daanu waa daanu na eh, daanu na def na chute éliminé nañ ko. cette élimine la cavalière. Eh, bi éliminé na ki nga xam ne mooy cavalière bi mooy Julie Lapère. waroon décibel Yelena Khouri moo nekk ci piste bi euh, belle joie de Lalu bokk poney club bu aan Yelena réussir na li nga xam ne moom mooy obstacle bi ngi jàkkaarloog ñun réussir na li nga xam ne mooy obstacle bi ouais ouais ouais Vincent Lehe moo war façon nga xam ne mooy blue yi waaw Vincent le sànq moo waroon fas fas boobu nga xam ne mooy course lii de Crest léegi nag ñëwaat na ci beneen fas boo xam ne mooy Blue Boy ñu xool Vincent lu muy def cavalier français la oh waaw détourné obstacle yi Vincent détourné obstacle yi Laura Noël euh, moo nekk ci piste bi moo camarade de la route. waaw Laura laal na benn benn euh, laal na baar fas bi mu war nag xam naa ni kii pii lañ koy wax pii. Mohamed Silla moo moo mooy cavalier bi nekk ci piste bi moo war fas woowu nga xam ne mooy aru mu ngi bokk cercle de l'étrier de Dakar Mohamed Silla. mu ngi profito pour mën a am temps bu favorable Mohamed Silla ndax ki nga xam ne moo mooy euh, Angelina 34 secondes la ko def Mohamed Silla mooy double sans faute bi dafa mel ni temps bi mu def temps bu am solo la hauteur 100 la woon ak 110 ñu nekkoon 28 cavaliers doon def nag euh, épreuve numéro 5 muy Ismaïl Tour mu nekk barème A au chrono barrage intégré. Euh, ren mooy cinquième édition euh, tournoi international de l'amitié mu am fii ci RCD yow yaa jël li nga xam ne moom mooy ndam li tey ban yëg-yëg nga am. oui di kontaan bu baax a baax di kontaan que di wax ni compétition c'est juste une répétition comme ni su suñu directeur de école di ko waxee Mansour la moom mooy tey suñu directeur di ko remercier au passage ak di remercier président wu club bi parce que cercle de l'étrier comité la il est jiit il présenté par le président Alexandre Alcantara et dama am mbégte bu rëy parce que tey jii jabaru fas fas bi ma war raw ci tey jabaram moo ko moom di Stéphanie Alcantara du coup maa ngi koy delloo njukkal. Eh je pense que bah j'étais bien partie euh, ma jument était vraiment bien euh, je pense j'ai perdu du temps sur mon trip je suis bien rentrée et euh, m'a fait perdre beaucoup de temps Et, euh, et, le dernier passage euh, du dernier concurrent avec Haro euh, était bien meilleur parce qu'il euh, m'a battu au niveau du temps, euh, sûrement, une meilleure trajectoire, je sais pas. On se rattrapera peut-être sur la 110. fi mu nekk nii nag euh, ñoo ngi def reconnaissance de piste lii nag dafa nekk lu am solo ci wàllu concours bi. Euh, dañuy xool repères yi nga xam ne moom la ñu war a mën a jël ak obstacle yi nga xam ne moom la ñu waru tëb ak foulée yi nga xam ne moom la ñu war a def nekk na loo xam ne lu am solo la. Euh, Salif Keita moo nekk ci piste bi mu war une en or de bernière Salif Keita bokk RCD ñu nekk 46 cavaliers jongante bu rëy rëy lay doon muy. 1 mètre 10 ak 1 mètre 20 hauteur Erwan ak Véry ñoo nekk ci pist bi mi ngi bokk écurie Anne Marinas day def courbe ñëw ci huitième bi waaw laal na laal na laal na laal na baar wala day ñëw nag def euh, neuvième obstacle waaw mu réussir ko Babacar Samb moo nekk ci piste bi ak euh, fas boobu nga xam ne mooy Fandène mu bokk association sportive des force armées mu réussir ko waa da laal na baar bi Babacar Samb ak fanden Yelena Khouri bel joie de l'eau mu ngi bokk poney club warul ki nga xam ne mooy Kandor Z Kandor Z mooy cheval fétiche bi mu am habitude di ko war waaye tey mi ngi war bel joie de l'eau Ali Taylor moo nekk ci piste bi moo Camara de la Roque mu ngi bokk RCD waaw réussir na obstacle bi waaw mu génn nag ci dixième obstacle bi waaw laal na baar Ali Taylor Babacar Ngom moo nekk ci piste bi Babacar Ngom ak United Love nekk pensionnaire u Racine de Dakar. 50 secondes mooy temps bi ñu war a joŋante ku am moins de 50 rek da boo moytuwul yow yaay jël li nga xam ne moom mooy médium tour bi. Angelina Madeline war euh, Venezuela Brécourt bokk pone club bu aan moo nekk ci piste bi. waaw ah, yu doy waar léegi nag dafay laaj nga am uh, xarañ waaw pour mën ci génn waaw ah, dafa laaj nga am tenue ñoo ngi fii ak uh, Salif Keita Salif uh, yow yaa raw ci li nga xam ne mooy médium tour bi épreuve bi nekkoon hauteur cent dix nga raw tey fii sa terrain de prédilection muy Racine Club de Dakar. waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp Mata euh, waaw tey. Euh, nii rek la mënoon demee daal waaw nii rek la mënoon liggéey nañu préparé woon nañu pour mun a jonganteeg suñu invité yi ñoo xam ñooy internationaux yi comme daaw boo gisee ñoom ñoo gagné daanaka yenn épreuve yëpp waaw léegi nag ñu ànd ak suñu coach liggéey mu teg ñu si conditions yu baax ah mu ne ñu liggéey ñu wane ni tey jii nii fii surtout wane ni Sénégal am na ay yu mat yoo xamante ni mun nañu ëllëg suba di génn di dem si yeneen dëkk yi di jongante comme ñoom ni ñuy fexee di ñëw fii nii. lan la ñuy xaar ci euh, saalif ak ki nga xam ne mooy Babacar Ngom. ah waaw ñu ñëw rek def nuñ daan def rek ren moom waxoon naa ko duma ko duñ ko may dara soit Babacar soit man. yow nga jël li nga xam ne moom mooy euh, deuxième euh, ci fas bi nga xam ne d'habitude gis nañ ne yaa ngi moom da ngeen a déggoo lool. waaw déggoo nañ dañoo mës a déggoo sax ak fas bi di ko féliciter rek di wax xam nga ni la waroon demee waaw ñàkkante nañ ko ba sonn mais finalement deuxième la mujjee am. mais baax na ñu ngi préparé grand prix bi allah. ñoo ngi ñoo ngi waajal li nga xam ne moom mooy euh, grand prix bi muy épreuve numéro 7 di big tour bi big bi nag moom mooy grand prix bi muy épreuve numéro 7 euh, hauteur bi di 120 barème A au chrono dina am barrage au chrono. daaw ki nga xam ne moo jël grand prix bi moom mooy Marie Fillon di cavalier belge mooy loreyat année 2019 ren ndax da koy jël xamaguñu waaye gaa yaa ngi def reconnaissance reconnaissance nag boo ko gisee ci équitation dafa nekk lu am solo gaa yi dañuy wër xool tâter terrain bi xool obstacle yi nga xam ne moom la ñu war a euh, tëb ci kanam tuuti que Souadou Wade Souadou yaay euh, présidente concours RCD bi tey muy euh, tournoi international de l'amitié tey yéen juri bi lan mooy seen rôle tey. alors ñun comme ni ñu ko waxee rek jury bi ñun ñooy jugé dañuy pour répartir cavalier yi euh, ndaxte selon parcours bi nu mu nu mu layoo war nga def le moins de fautes possible ba pare ñu leen di chronométrer. Mhm. di xool itam ndax euh, règlement bi yëpp ñu ngi koy appliquer. ci piste bi ci paddock bi. ak fu wëralee par bi yëpp. ñu am 23 cavaliers mu nekk barème A au chrono barrage au chrono ñu am 8 cavaliers yoo xam ne ay belge lañ ak ay français ki nga xam ne moo nekk ci biir piste bi nag mooy Maeva Boye war fas woowu nga xam ne mooy crack bokk écurie Anne Marinas moom mooy première cavalière bi nag nga xam ne moo xam ne moo nekk ci piste bi. def na 4 points de pénalité ñu xaar temps bi lan lay def Aziz Paye war alato de la Sens mu bokk ru écurie Anne moom tamit waaw ah, waaw waaw laal na li nga xam ne moom mooy petite courbe bi muy oxer 10 bi mu génn 11 muy oxer bleu moom mooy arrivé bi Laura Noël Wartina mu ñëw nag ci neuvième bi muy triple entrée verticale mu nekk verticale oxer triple la réussir na première obstacle bi deuxième bi troisième bi sans faute ak Tina waaw euh, Salif Keita moo nekk ci piste bi moo mook euh, fas boobu nga xam ne mooy une en or de bernière pour wax ne hauteur bi rek 1 mètre 20 la ak Salif ak une en or de bernière mu réussir ko mu ñëw nag ci neuf bi muy triple triple entrée verticale muy verticale waaw dugg na fa génn na fa réussir ko am nañ beneen deuxième sans faute muy Salif Keita ci une en or de Bernière actuellement il fait partie des doyens de l'équitation sénégalaise Mok Bac ak Bruno Rosière waaw Mansour Mansour Sila moo nekk ci pist bi Mansour Sila war Estella boo bokk cercle de l'étrier de Dakar Mansour di cavalier bu mag mu ñëw nag war a génn ci Auxerre bleu blan arrive bi mu réussir ko amoot amaat nañ beneen sans waaw waaw Mansour Sylla ak Estella ki nekk ci biir piste bi mooy maréchal de logis El Hadj Niane war Fidélis de Filane bokk Asfa. laal na ko laal na sept obstacle sept réussir le huit onzième obstacle fas wi dafa bañ. waaw la lauréate euh, de l' année deux mille dix neuf moo dugg léegi muy Marie Fouillon war Dubaï Baye Dubaï Bois Passé waaw cavalière belge la moo ko jëloon daaw mooy lauréate bi ndax dana ko jël ren xamaguñu mooy lauréate def na sans faute Marie Fouillon Awa Sayer Ndiaye moo nekk ci piste bi war fas bi nga xam ne mooy Easy Player boo ko bokk RCD Racine Club de Dakar mu réussir ko mu jóge fa nag ñëw jël Auxerre bleu blanc pour arrivée bi réussir na ko def na 4 points de pénalité ki nekk ci piste bi mooy Bruno Rosière war Baguera de Brel bokk Poney Club bu Hann mu ñëw nag pour génn ci onzième Auxerre bleu blanc mooy nekk arrivée bi Bruno réussir na ko am na 4 points de pénalité Yelena Khouri moo nekk euh, ci piste bi cavalière bi nga xam ne mooy Yelena ak Kandor Zadd laal na Yelena tey li mu laal bëri na li laal ci ay baar bari na cavalier bi nekk ci pist bi mooy 16e bi muy euh, Amoudi Kazoun waar Ursuline Blue bokk écurie Anne Marinas mi ngi génn ñëw ci dixième bi muy petite courbe bi mu jeexale nag onzième muy Auxerre bleu blanc muy arrivé bi réussir na ko Amady day dem barrage. Clément Borolo war ultime désir bokk poney club bu aan waaw fi mu ne nii mi ngi attaqué li nga xam ne mooy deuxième obstacle vertical rouge gris mu réussir ko. jeune cavalier nekk poney club bu aan am na avenir ci li nga xam ne mooy jëm ci wàllu équitation André Philippe. cavalier français la moo nekk ci piste bi mi ngi attaqué double bi laal na baar laal na laal na baar. waaw cavalier bi nekk ci biir euh, moom mooy bàcc gay ak fas woowu nga xam ne mooy Lucie mu bokk RCD Racing Club de Dakar. Euh, petite courbe bi mu réussir ko mu ñëw ci onze bi muy Auxerre bleu blanc muy jeexal muy arrivé bi. Euh, dernier concurrent bi muy Christophe Lutnaens war Héloïse moo nekk ci pist bi mooy dernier concurrent bi mu ñëw nag euh, petite courbe bi waa daaneel na benn baar six barragistes la euh, ki nga xam ne moo nekk ci piste bi mooy Laura Noël Wartina cet obstacle nag lañu ñu fas yéene tëb muy obstacle numéro 13 numéro 1 obstacle numéro numéro 10 numéro bc ak concours international de l'amitié am fii ci Racine Club de Dakar muy massif forestier bu Petit Mbao. Ah, le départ est donné Salif. obstacle euh, numéro 10 mu réussir ko 4 points 34 secondes Mansour Silla ak Estella bokk cercle de l'étrier de Dakar ak Mansour mu réussir ko mu dem ci 11 bi mu réussir ko am na 4 points de pénalité waaw euh, Marie Fillon moo nekk lauréate euh, année 2019 bi fii la xewe woon ci cercle de l'étrier de Dakar euh, ci euh, Racine de Dakar fii la xewe woon Marifion di cavalière belge waa réussir na obstacle 13 waaw Amadou Kazoun mooy dugg Amadou Kazoun moom mooy cinquième cavalier bi mu des Clément Brolo ci barrage yi numéro waaw mu ñëw nag obstacle numéro 10 mu réussir ko Clément Bourolo mooy euh, cavalier bi nga xam ne moo mujj ci barrage si mu réussir ko mu dem ci onze bi muy bleu blanc bi mu réussir ko waaw mu ñëw nag jeexal ak li nga xam ne mooy quatorze bi quatorze bi fas yi dafa def refus waaw defaat na refus bu ko defee troisième fois ñu éliminé ko waaw xam nga six cavaliers yi ki nga xam ne moo jël premier moom mooy Amoudy Kazoun. 4 points de pénalité la am en 34 secondes 37 centièmes ak fas boobu nga xam ne mooy Ursuline Boulou. concours international de la l'amitié tey mu jox la cër invité la nga ñëw joxe li nga xam ne mooy grand prix waaw euh, Diallo dama kontaan ñëw représente bi euh, euh, les fis dans son ensemble. ak euh, tous les propriétaires de chevaux yi nga xam ne ils font des courses au galop may kontaan loolu aussi parce que Pape Seck en tant que euh, président euh, de de la formation bu ma convié à cette fête la ma ñëw représenter les courses hippiques je ne peux que m'en féliciter. tey yow yaa gagné li nga xam ne mooy cinquième saut bi yaag Pape yéen am habitude di ko organiser ay cavaliers di joge ci à l'étranger di ñëw daaw Marifion moo ko jëloon yow nga jël ko tey lan la def ci yow. compétition bi métti woon na wax dëgg-dëgg yàlla cavalier yi ñu ñëw dañu mën a war torop suñu cavalier sénégalais yi di dem ti barrage bi Mansour Sylla ak Salif Keita mun nañ war torop ñoom tamit daa xawoon métti mais. ak euh, gën naa ci ak euh, ak dam dama amoon benn opération sama opération sama épaule moo tojoon def naa six mois rééducation euh, ça fait deux mois maa ngi commencé Watworth maa ngi sama troisième Grand Prix jël naa ñaari yoon deuxième place bi. léegi raw grand prix bi bi may organisé ak Pape Seck neex na ma torop euh, euh, Pape Seck Pape Seck mooy initiateur moo ànd euh, ki nga xam ne mooy Amadou Kazoun ren mooy cinquième édition ñuy organiser li nga xam ne mooy concours de saut d'obstacle bi nga xam ne mooy am fii muy concours international de l'amitié muy concours boo xam ne concours bu am solo la tey gis nañ cavalier français yi belge yi ak ñi nga xam ne ñooy américains yi ñëw bokku ci. wax bi rafet na tënk ngoo sax. satisfaction totale la ñu am ndaxte Amady Kazoun sama rakk la bi ñu yàggee sos mbir mi yàgg na léegi ñëpp xam nañ ne lii dëgg la tey jii boo gisee jataay bi ñi fi nekk ak ñi fi ñëw macha allah ñii jóge nañ Belgique ñii jóge nañ France ñii jóge nañ États-Unis ñii jóge nañu euh, Belgique dëkk yu nekk pour ñëw répondre présent ci ci bés bi looloo waral succès journée bi tey tet ki ñu ko jagleel mooy le ministre de l' environnement ndax chaque année day tombe ak mais bi yoon dañ ko euh, jumelé ak la cinquième édition du concours international de l'amitié waaw daw moom daw moom dañu duma duma yu metti il faut ñu nangu ko ren gars yi fas jom ni lii amoon daaw du amati erreur bu rëy moom les gars yi xam na ni bés du tuuti ndam du tuuti mari fulan gawar la lii tëbal seen dëkk ñun duñ ko tëbal fii mais fii xam naa ni am na ay cavaliers yu dégg ngalam yu mën a war yu bëgg li ñuy def Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour Marie Ah, c'est le sport. Hein. Parce qu'il y avait 5 barragistes. Voilà. Euh, ce qui a manqué, c'est que j'ai fait des fautes et que dans le sport, ça ne pardonne pas. Donc, un jour n'est pas l'autre. Et on recommence la semaine après et l'année après. Et c'est juste ça la différence. C'était un autre cheval que l'année passée. Hein. Colombe, elle avait gagné les trois jours. Ici, c'est euh, un autre cheval. C'est un peu les premiers grands prix qu'il fait. Et il a montré qu'il le fait magnifiquement bien et qu'il était parfaitement prêt pour la nouvelle saison. Mbokki téléspectateurs de la 2 TV ñëwaloon nañ leen fi nga xam ne moom mooy Racine Club de dakaar ci massif massif forestier forestier bu mbaaw ñu ñëwoon nag ci concours international de l'amitié bi nga xam ne moo amoon fii gis ngeen ren nag ki nga xam ne mooy may Fion moo ñëwoon lauréat bi daaw waaye ren Amoudy Kazoun bokk écurie Anne marinage moo jël li nga xam ne mooy grand prix bi fii euh, lii lañ leen jëlaloon fi nga xam ne moom mooy Racine Club du dakaar di leen ñaanal jàmm seen émission au galop